dañ ci waroon am position mu leer Sénégal xam li mu li mu am fan lañ koy dugal parce que loolu ci xifzul maal ci lay dugg maanaam diine li ko tax a ñëw juróomi mbir la boo koy tënk daf cee bokk mooy wattu alal alalu alal ji askan wi moom fan lay dugg xam nga ñun xamuñu li ñu am ba léegi li may faral di wax ne sénégalais sénégalais bu pauvre amul sénégalais yëpp li ci gën a ndaw li nga mën a wax ay millionnaire lañu parce que koom bi nekk fii nii moo ëpp téeméeri yoon la la nekk Qatar te xatar tey ñooy individu xatar bi ñooy ñi gën a riche ci àddina bi c'est parce que koom bi daa yegg ci population bi mais ñun liñ am yëpp buñ ñu ko joxoon pétrole bi rek zircon bi rek euh, waxuma yeneen yu sew sewaan yi mu yegg ci peuple bi ku ñàkk amatul mais tey discours nitu diina yi yeggul foofu fan nga mës a gis ay gàmm ak i màggal yooyu ñu jël thème pétrole di ko traité. Mhm. te dañ ko war a traité orienté si nit ñi. donc vraiment vraiment ci xifzul maal ci lay dugg. Mhm, mhm, alal ji dañ ko war di topp toppatoo comme ni ñuy fexee bu bu deret tuuro ñu naan bàyyi leen bakkan yi ngeen di rey yàlla bëggul deret waaye léegi nag ki détourné ay milliards. wa dañ cee war a dégg sa kàddu. kooku kooku mooy euh, criminel financier bi ñuy wax loolu am am am na solo imam imam tey moom xam naa imam tey loo añee waaw xam naa gi ma <laughs> directeur ah, jox ah. directeur nag daf may café gu neex ah tabarakallah Dramé la sant de xanaa ay ginaar nga dugg dugg ay wala ay yéen nga dugg imam foo jaar café gi ñu ma jox la rek directeur après naa jël après naa jël suuf <laughs> balaa ngaa ñibbi après naa jël suuf ñu xool ñu xool nu ñu lijjantee la parce que tey moom allah foog ñu xoolantool alors dañuy dugg ci beneen sujet waxtaan bi euh, wàllum yoon la ñuy des ba tey ak Barthélemy Diaz mi war a dem jàkkaarloo ak àttekat bu cour suprême bi le 22 la lool di am le 22 décembre bi ñu dëkk moom yem mook ak ajjuma voilà date biñ ko jàpp mm-hmm. am na jamono yoo xamante ne ay bés ci ginnaaw ñëpp dañoo yaakaaroon ne digganteem ak euh, ñi yor nguur gi nag fi ñu toon lépp rafet na mm-hmm. ñu jékki-jékki rek xëy ñu nañu euh, le 22 dana wuyu ji mm-hmm. mu xam li ko ci nar a fekk mm-hmm. dana bu moytuwul dëgg-dëgg dana ñàkk euh, poste député ba mu nekk waaye moom dem na sax plus loin parce que nee na boo moytuwul sax Khalifa Sall mën na ci am problème ci parrainage des élus bi parce que moom suñ ko génnee balaa ñu koo remplacer balaa ñoo installé ki koy wuutu day fekk session nee na duñ nekk en session donc loolu dafay dafay compliqué naka nga gisee loolu digganteem ak euh, ñi fi nekk wala digganteem ak yoon ci dossier Ndiaga Diouf boobu. bon en fait euh, man position bi ñu ci amoon démb moom lañ ci amaat. Mhm. mooy que ni euh, dossier Ndiaga Diouf bi moom wax dëgg yàlla. impartialité wu justice bi ñu doon waxtaanee sànq te mu tàmbali feeñ moom feeñu ci ndax justice te déw fa njaaxanaay mhm. donc c'est pas parce que aujourd'hui Bart am na beneen position mu taxaw rek que lii ko dal dañ ko koy yéene. waaw ndax euh, yoon ba muy woote di woo Bart am na ñoo xamante ni ñoo commandité woon ñoo yabaloon Ndiaga Diouf. Mhm. mbir yi ci Barth rek la yem. te it ba ñu defee liggéey bi nga xamante ni experts yi defoon nañ ko. Mhm. wane nañ ni carrément Barth li nga xamante ni moo tiré du moom moo rey. donc nag côté boobu moom wax dëgg yàlla on a euh, les mêmes positions yi nga amoon démb. maintenant man côté bi may ñëwee ci Barth ndax keroog conférence de presse bi laal na ay yu bari mooy bi nga wax léegi ci wàllu parrainage effectivement Euh, euh, taxaw Sénégal ils ont quatorze députés au lieu de treize. et que parrainage yu élu si treize députés da ngay dem. Mhm. donc kàddu boobu moom mënu ma jàpp ni kàddu bu wér la. beneen bi mooy ville de Dakar man le 10 août euh, bi weesu ba ñuy ràjjee ki nga xamante ne mooy Abbas Fall di ko di ko dindi ci poste première. non dañ dem élection waaw bañ demee élection waa ba yooyu am yooyu yëpp. Mhm. Tom Beck tamit ñu jàppoon suñu maire dama defoon benn conférence de presse. di def appel à Barthélémy Diaz. Jamil Sané waaw parce que conférence de presse boobu point yi dafa nekkoon d' abord ci opposition bi xam naa mooy nekk suñu suñu lu ñu war a waxtaanee ban taxawaay la ñu war a am ci jamono jooju ñaareelu point bi nekkoon ville de Dakar ak ñun communes yi ndax ville de Dakar boo xoolee amul territoire. Mhm. ñun suñu suñu territoire ci la bokk territoire u mooy les dix neuf communes yi nekk biir Dakar moom la ñu boole mu nekk ville de Dakar. nga xamante ni ñun dafa am suñu ay ressources suñu ay recettes. Mm-hmm. yoo xamante ni moom lañ koy jagleel. recettes yooyu nag da ko waraat ñëwaat investir ko ci li nga xamante ni mooy communes yi en en toute équité nag nga xamante ni du xool kii taxaw la bokk wala déet. Mm-hmm. ñun avant ñi tëj le maire Jamil Sané euh, wax dëgg yàlla am na ay projets yu bari yoo xam man maa ko doon piloté ak ñoom maa doon def conception bi ñu jox leen ñun retour ba ñu am ay projets yu bari moo xam pavage wala yeneen ak yeneen. Euh, am yu ñu waroon lancer en juillet mois de juillet mais ba paf bi am digganteem ak euh, waa PASTEF dañu gis ni projet yu bëri yu ñu yu ñu doon defar ñoom dañ ko dañ ko yóbbu ci li nga xamante ni mooy les communes yi nga xamante ni taxaw ñoo fa nekk donc loolu artu woon naa ko ci wax ko ko tamit. li ngay wax ni kon moom li muy. non loolu laa bëgg a wax fa fa laa bëgg a ñëw donc moom Bart euh, malheureusement posture bi mu am dafa nekk benn posture boo xamante ni il est égoïste. parce que te loolu nag type de politicien boobu moo war a disparaître mooy sama bopp rek laay xalaat Barth en réalité il ne pense même pas à à Khalifa parce que Khalifa man ak loo ko mën a waxal gis nga ni am na réserve amul foo xamante ne àgg na fa ci wàllu kàddu ci wàllu moo tax ba ko gars di traité de traître man dama ci opposé wu dama ne Khalifa Sall du traître wax dëgg yàlla parce que man dama gëm ni opposition bi ak lu mën a xew ëllëg ñooy dajawaat. Mm-hmm. te ñoo war a yor réew mi te fii ñu jëm dafa laaj intelligence bu mat sëkk. surtout ci biir yeewi askan bi mhm. ma bokk ci ñi nga xam ni aussi dañu gëmoon ci biir yeewi askan bi fa nekkee ñaari candidature ñoo war a dem ci présidentielle yi muy Khalifa Sall ak Ousmane Sonko yeneen leaders yi def te loolu fi ma ko teg fu leer laa ko teg yeneen leaders yi def seen choix mhm. comme ni ko Lacoste defee ci le président Ousmane Sonko mhm. ñi nga xamante nag yëg nañ ànd ak Khalifa ñu ànd ak moom bu ñu paree ñu wëyaat ànd ndax dafa am yoo xam dañ ko sumbandoo woon ensemble mi rayal parce que yëpp lu tax may wax ni kii dafa dafa dafa égoïste Ousmane Sonko moo doon président wu Royal mi réseau des élus locaux des élus locaux boobu dafa amoon yu bari yoo xamante ko waroon xeex mi Barthélemy tey lii muy jooy nii mi jaay doole bi nga xamante ni état mi ngi koy jaay doole collectivités territoriales yi. Mhm. ndax collectivités territoriales yi encore une fois loi moo leen jox prérogative yi ñu moom en terme d' autonomie en terme de libre administration. Mhm. ak li nga xamante ni recettes yi ñu leen war di allouer. léegi nag état day ñëw comme ñun principe de l' de caisse maanaam bu ñu regrouper suñu suñu suñu suñu suñu koom yépp ñun Parcelles Assainies day dem trésor public nga xamante ni ñun suñu comptable ñun état ci so ordre état la nekk maanaam ñun suñu xaalis mënuñu ko contrôler suñu bopp dañuy soxla dem wax ñu ne la xaalis amul da ngay xaar boo amee ay projet yoo war a dérouler il faudrait que nga toog xaar ba keroog état te ministère des finances moo géré moo géré trésor public percepteur bi ci ordre am lay wéy bu dee tuyee ñoom ñooy xool heure bu mu leen neexee ak anam bu mu la neexee ñu ñëw jox la loo xamante ni mooy say tourne wala mooy recette yi nga xamante ni moom nga collecté mu nekk nag loo xamante ni Ousmane Sonko ci ci gis-gisam mu ne lii dañu war a créer benn réseau des élus locaux Barthélémy Diaz nekk le vice-président nga xamante ni aujourd'hui ba ñu gàllankoore Sonko moo waroon assurer intérim bi mhm. taxaw yor xeex boobu ndax bëri na ci lu bari ñun par exemple Parcelles Assainies SNO mi société concessionnaire yi mi SNO mi Senelec nga xamante ni Parcelles Assainies li fa nekk ci nombre d'abonnés nga xamante ni taxe bi ak ku fay ku ne ku fay képp koo xamante ni abonné nga Sen'Eau wala Senelec saa yoo fay am na lu ñuy dagg ci yow pour mu war a jëmaat ci collectivités territoriales yi mais ñun boo xoolee cinq millions la ñuy jox ci population boom xam te ni toll na de trois cent mille habitants mm-hmm. dama lay bàyyi nga def sa calcul nga xool ba xam mm-hmm. daanaka bu fekkoon ni jaar na yoon wala ñun ñu am ku ñu représenté foofu fi nga xamante ni fa la ñuy demee calculer ñun boo leen boo leen laajee seen comptabilité wala nga laaj leen le nombre d'abonnés man maa ngi doon def benn enquête parce que dafa forum bu ñu war a organiser au sein de la commune muy benn forum de l'habitat mm-hmm. ñu bëggoon xool nombre locataires yi ñu ne nañu dem laaj leen ñoom waa CNO les compteurs divisionnaires leur nombre d'abonnés en tant qu'institution mm-hmm. mais dañu bañ donc pour vous dire que ni amul transparence ci ni ñu répartir ñi nga xamante ni mooy suñu ay suñu ay moomeel Barthélémy nag li muy jooy daf ko defee maanaam li muy li muy jooy aujourd'hui mooy conséquence li nga xamante ni mooy taxawaayam ci lii ñu weesu man awma problème ak nit. Mhm. wax dëgg yàlla man euh, du ma du ma ay parce que. kii waaw du ma def du ma def débat de mhm. personne. mais bu ñu jàngatee ci fee yi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dafa yàq loo xamante ni euh, lu ñu tabaxoon lu am am solo loo xamante ni lii muy xeex yépp tey te wéet ci loolu nag. Mhm. loolu mënoon na ko aar ci loolu. donc nag wax dëgg yàlla. kon su ma comprendre li mu yuuxu daal naan Macky Sall fu mu waroon am ay milliards léegi ay millions lañ ko fa jox euh, di jàmbat ni daal dañ koy dañ koy pressé dañ koy jaay doole yéen tamit noonu la leen di def. mais absolument absolument à sa manière nag. Mhm. xam nga bon peut-être euh, niveau état ak niveau. du benn mais quand mhm. même. li dépendre ci moom daal dépendre ci moom wax dëgg yàlla ñun nu ñu ci waroon gisee suñu bopp parce que Parcelles Assainies umpale woon ni ci 19 communes de Dakar doole moo doole. Mhm. donte peut-être ay almadi li muy dugal ci recette mu ëpp parce que foofu moom xëj na. fa la mhm. fa la kii gën a nekk maanaam mais Parcelles Assainies aujourd'hui li mu waroon am en terme de réalisation amu ko. Mhm. voilà yoof boo demee yoof da ngay gis ni ñu ngi liggéey yoof boo demee Hann Bel-Air seen maire fa nekk fa lañ dàmbalee seen ay travaux. Mhm. donc parcelle digg nañ ñu. am na yu ñu xaw ak tàmbali di ko def. voilà mais quand même wax dëgg yàlla projet yi nga xamante ni mooy projet yu structurel yi. Mhm. gisaguñ ci suñu bopp. danga nga dégg dama dégg nga dina ci wéet loolu lu tax nga di def ciy wéet. non lu tax mu ciy wéet parce que d' abord euh, posture bi mu yor xam nga nit euh, ñi nga xamante ni mooy je pense que ni imam moo ko doon nettali am na benn émission ma doon suivre ci ñetti nag yi xaw ma yow la waaw ñetti nag yooyu daanaka boo xoolee moo ko dal ndax moom il il euh, dafa jàppoon ni. parce ñu bëri sax loolu lañ jàppoon ci opposition bi. Mhm. waaw man opposition bi seen posture yeeyu askan bi yàgg naa woon am. xëj na benn taxawaay boo xamante ni doonu toon neex yenn leaders yi parce que dama ne jàngat bi ñu ci amoon daal mooy ñoom dañu bëggoon euh, président Ousmane Sonko ñenn ñi bokk. Mhm. ñu yóbbu ko abattoir pour ñu mën a récupérer li nga xamante ni mooy électorat am donc ñu ci bari loolu moo doon seen ay mbébét donc nag moom li mu li mu jéem ci le président Ousmane Sonko ci waxtu bi nga xamante ni def na ko. je pense que ni loolu daf ko topp waaw da ko topp te tamit ñu ci baree bari ñoo xamante ni amoon Barthélemy naturellement il pouvait être le numéro le numéro deux de l'opposition bu ñu bu ñu téye Ousmane Sonko ndax sénégalais yépp amoon cofeel ci moom mm-hmm. ci taxawaayam ci dëgg ci taxawaayam tamit parce que Ousmane Sonko c'est pas du du jëmmam en fait mais li mu incarné aujourd'hui dafa nekk loo xamante ni boo ci dalee dafa mel ni yow da ngay da ngay xeex sénégalais yi mm-hmm. ndax il est dafa incarné dëgg am engagement bu wér képp koo xamante ni tamit affilié wu nga ci moom te am taxawaay boobu nit ñi dañ lay bëgg naturellement sànq ñu ngi ci waxtaan euh, ñu ngi ci doon waxtaan maintenant nag kaawu Barthélémy Diaz aussi dafa war a yee